alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani bismillahi rahmani rahim asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki Taskiru Sabah ñu fas yéene ñëw ak yéen ci seen 1885 di jéglu nag ñaari fan yi nga xam ni déggu leen nu nekkoon ci ab tukki ñaan borom bi defal nu tawfeex defal leen ko te jéggal leen yéen seeni bakkaar jéggal nu ko mu mel ni démb xam ngeen ni dafa naa la woon 24 décembre am lu ci jamono baaxoo saa yuy jotee jëm fin d'année bi yépp euh, waaye bala noo ñëw ci wàllu feet 24 décembre li ci borom xam-xam yi wax mbokk mi nii lañ ko nii ab seet kenn du ko wàcc ci ab lal eh, ndax loolu ci lislaam la eh, ab seet day dinañ ko wàcc ci ab lal man ki ma ko mujjee laaj sax dama ko ni yow day say nopp de sa waajur wu jigéen de ci ab lal la wàccan ndax dama fekk woon ba waajuram di wàcc kon bu ñu demee nag ba jamono ji li xale yi xam li nit ñi xam seet bi buy wàcc dañuy wéer lal bi feer def matelas bi mbooloo mu bari mii ab seet baaxoo <coughs> baaxoo am bu dee lal buñ ko bàyyi noonu day xatte lal bi léeg-léeg mën nañ caa toog mu damm surtout bu jëkk nga xam ni lal yi melul nii mu meloon dañuy dindi lal yi teg na le waaw waaye loolu nekkul lu aay aayul waaw nekkul lu aay suñ classe gi ñu ci bare bari seen soxna ba mu ñu wàcc ci kawab lal la wàcc ci kawab lal la wàcc kon loolu daa bokk ci rek yi nga xam ni ci eh, ci ci yenn aada yi lañ koy fare ci mbedd mi rek eh, lu jëm nag ci lutte bi ndax war naa togg dara ci bisu 24 comme ni ko mbokk mi laajee laaj yu ñu sax danga koy defaraat boo ne ndax ab jullit war naa togg déedéet da nga naa ndax ab jullit mën naa togg ab reeru 24 <coughs> décembre ndax boo nee war naa rek day mel ni lu yàlla waral ci nit ab war naa def nangam mooy ndax yàlla sant na ko nangam kon laaj yi nii nañ koy xool bu baax waaw lu war ci sunu borom rek lay jóge lu ñu sunnaal jóge ci sayyidina Muhammad alayhi salaatu wasalaam waaw ndax nit mën naa togg reeru 24 décembre coow yi da cee bari lool ndax ñenn ñi li leen tiital ak li leen jaaxal dañuy dégg yenn borom xam-xam ni mën na ko kay yenn borom xam-xam ni dafa araam ak gël ci araamal ko ah am ci ku ni ñi nga xam ni ñoom ñooy chrétien yi togg seeni ginaar ñu doon say dëkkandoo ñu yàkkal la ca ndax mën nga ko lekk ñoom suñ boroom moo wax ci alxuraan nit daggat na ci yéen ñoom bu ñu rendee euh, ngeen lekk kon amul bis kon amul bis ci bis bii ji da ngay lekk seenu ñam bu 24 décembre jote doo lekk seenu ñam te lañ togg di ginaar walla xar walla bëy wala jën ñu say dëkkandoo kon loolu lislaam terewu la ko waaye nag li jamono indi nii tax ñi ñi ñiy kaas di kaas mooy jullit yi dañoo nekk ay roy dàq ñu bari ci noonu ñu bari ci noonu naka koy doone boroom kër boo xam ni amul benn bis bu la jaral lebi wala bu la jaral yenn coono yi waaye 24 décembre bu ñëwee moom boo amul di nga ko lebi di nga ci daj coono yoo xam ne ndax lan ndax tey la 24 décembre yow moom fokk ah di nga ci dem béréb sàngam wala di nga ci lekk nangam wala di ci nangam loolu foo ko teg 365 jours yëpp ñi ngi fi sa yoon nekku ci daanaka lu dul tabaski kori waaye 24 décembre moom da nga koo gëm a gëm a gëm ba dafa bokk ci sa dund bokk na ci liy féexal sa xol moom bu jotee nga wuti yu neex yu ñuy naan ak lu ñuy lekk ak wane ni tey la yàlla boo ca boole sax jëndal say doom ay kado te den ci ñëw waaw taal ay pitaar ñaata ton la ñuy taal ci àdduna bi ci ay pitaar loolu mooy nga génn kayitu junni wii rek nga daal ciy teg almet taal ko pitaar noonu la mel waaw noonu la mel te xam ngeen yàq dafa xaraam pourquoi nga jëlal sa doom nag kon plus lu tax lu tax jëlal sa kado sa doom ndax ab lit mën na ko maanaam looy def ni dama koy def ngir 24 décembre loolu lañ la laaj yow foo ko teg foo ko teg yow lu ci sa yoon yonent Yàlla saa mu tedd moomu di sunu yonent ñun jullit yi ñun ñëpp ndax jullit moom ñëpp ay yonenteem lañu maanaam gëm nañ ni yàllaa leen yónni bokk werante am na ñu judduwul ci 24 décembre werante wu yaatoo yaatoo yaatu am ay firnde waaw même même bu ci juddu woon sax yow yow yow gëlëb jullit ah, xam njàngalem lislaam nga xam ni jullit dafa war di jëngu ci lu ko biir ni lii lu neex suñu boroom la lii lu ko amal njariñ la yow lu ci sa yoon ci 24 décembre lu ci sa yoon ñi ko gëm te di ko màggal sax ñoom dañ ci def ak jaamu yàlla ci seen église yow nag fo noos fecc ci déglu musique rek nga ciy def loolu euh, ab jut waru ko def sa jëf yi ngay jëf te jaaduwul yépp mi ngi lay xaar yawmal qiyaam wax yi ngay wax te baaxul yépp amul njariñ ñi ngi mi ngi lay xaar yawmal qiyaam mu nekk mbalit mu nëb mu xasaw xam ni eh, nekk sa néeg sax néeg bi am foos nga ubbi foos bi sax moo dàq fuuf yu bon yooyu nga xam ni ëllëg yooyu nekk ak moom nga bëgg koo génn te du génn ndax ci yow la bokk yu sew sewaan yii ñuy ñàkkal fayda di ko ñàkkal solo yu ci bari noonu lay mel te bu dee nag bàkkaar yu bëgg ya nga xam ne yooyu nag moom sawar wu tàng wuy lakke te doo faatu lay doon ak yi jaan yu lay màtt nag yooyu nag wal ayaasu billaah maanaam kado ji boppam nañ ko xool ah, jullit bi bëgguñu mu jël loo xam ni lañ koo màndargaal ni am nag ruux mu di ko bàyyi këram mu di ko bàyyi këram kon nag bu dara xewul sax bëgg ba nga bëgg yow sa doom lu ko neex wala wala lu muy foyee sax yow bul ko jëndal loo xam ni mala la walla nit la mala la wala nit la jëndal jëndal ko leneen loo xam lu mel nii ab jumtuwaay la nga jëndal ko ko bu fekkee dafa toll ci fo te ab gone ni ngay laboo bànnee xam ci Euh, lu muy gis di kontaan dañoo bëgg nga teel koo dugal ci teel ko yar ci lépp loo xam ni mooy tax bu màggee mu nekk jullit yàlla kontaan ci moom mu kontaan ci yàlla da koy mooñaale ak sa doom yar bi nga ko yar boo ko juree ndey ju baax di ànd ak moom ci na nga war a ànd ak moom ba ba doom julli ca ngeen tàmbali ko defar ndax borom xam-xam bañ indi woon xale bu ma sa jàng ni ko lu bëgg kat ko mun leen wees na ba ñu ndee kuy fer mun leen wees na ñu di kuy soo ni wees na ba ko laajee nag ni kon nu ñuy def mu ni danga koy tàmbalee ca ndey ji ko ndey ju baax ndey ju mooy yow li nga doon taamu ci jigéen jàpp nga ni mi ngi ci kii ndax doom ju baax di kon peut-être di nga ko mën a am moom it mi ngi doon taamu góor gu baax ba ba am doom ju baax ñaar ñooñu bu ñu dajee dina yomb lool waaye xam ngeen ni eh, ay 24 décembre jot nga daggal xale yi feet gu gudd goo xam ne ah, feet gu gudd gudd goo xam ne duñu ko jàngi te loolu doon lu valable ci àdduna yépp yépp eh, juddub sayyidina alayhi salaatu wasalaam kenn du ko yëgal sa yaram du am fet ah? kenn du ko yëgal sa yaram yow loolu bu mu mu mu waral laa naqari sax ba tax nga war a jàpp sa njàmbur ci beneen juddub sunu yonent boobu moom it waaye jullit yi li ci baree baree bari daanaka duñ ko seet ayul nag wax dëgg yàlla. nga am sa alal léeg-léeg nga jox say sa waa kër ñu jënd ay ginaar wala ñu jënd nangam changé reer bi léeg-léeg nga di ko def waaye que li doy waar kay mooy doo ko def doo ko def doo ko def 24 décembre kese kese ci nga koy def te jublu caa màggal 24 décembre bi jublu goo nga ci jublu mooy loolu mooy loolu mooy yow yaa ngi def lu la warul loolu ab jullit du ko def loo war na màggal ma ngi fi wala boog loo war na jox yitte mi ngi fi bés bu ne sa yoon nekku ca yow buñ la xoolee xamuñu tey jii ci yow tey la ajjuma wala tey du ajjuma sa yoon nekku ci ajjuma waaw waaye nag yii moom gëm goo ko gëm mi ngi ci ndax la ndax complexe ndax complex waaw ndax complexe kado yi nga war a mën a jënd di ko jox sa doom ah, bari na lool ñun sëriñi daara yii day soxla woon nañ lool eh, ay gisu gisu amet saa loolu yu baree baree bari ay kaamil buñ xaaj ñeenti xaaj cinq mille franc quatre mille lay jar nga jënd ko jox ko benn sëriñ daara waaw ak yu mel noonu ak yu mel noonu léeg-léeg ñu bëgg am bëgg bëgg nañu luñ jënd ay kaye ay kaye bëgg nañ luñ jënd daa bëgg nañ luñ jënd ay big sedd baa ngi ñëw bëgg nañ luñ jënd ak diw waaw yóbbu ko ci xale yi ndax waajur muy fay te la muy fay metti na ko lool wala boog metti na ci moom lool te boo ko xoolee la ñuy dépensé ci xale bi sax moo ëpp pay gi moo tax sëriñ daara yi dañuy soxla woo yu bare bare bare bare eh, ay kadoo ngi noonu waaye fas yu nga jënd wala gaynde gi wala nangam jox sa doom nga defee loolu yow di nga ci am benn tuyaab ah yow li nga dañ koy tere lii lii luy màndargaal roo la waaw li ci gën a metti nag moom mooy pitaar yi li ci gën a metti nag moom mooy putaar yi déranger nit ñi yàq sa alal yooyu lañ ko bàyyi boroom kër day xool fi mu war a tàmbalee ak fi war a yam ci wàll yëpp ndax moom mooy diriger waaye buñ ne léegi njabootu léegi njabootu kanaara la mooy ah kon kanaara moom fu doom yi jëm fa la jëm ñoom doom yee koy womat loolu du yëfu nit loolu yëfu kanaara la loolu yëfu kanaara la ne bu 24 décembre jotee fu baree bari ñu naa maire bi moom moo génne nangami million pour rafetal dëkk bi pour taaral ko yooyu yëpp léegi du suñu aada noonu waaw ñu ngi koy def de waaye du suñu aada dañ noo coloniser am luñ ñu fi bàyyil loola nu di ko respecté ki jëkk nekk njiitu réew mi fexe ba installé fi feeti feeti seen diine jooju feet yu baree baree bari bu yàgg lool lislaam ci lañ tàmbali ah, am genn feet goo xam ne mën nga li fii ci Sénégal bis boobu fi la juddoo màgga fi muy màggal Tuuba ba der ci am jëkk ko uh, provoqué ba ci jamono Abdoulaye Wade ci lañ ko soog def maanaam bis bu fet waaye daanaka bu lool loolu amuñu amuñu beneen feet bu dul bisub kori ak ak bisub tabaski te day gàtt lool gàtt trop feet yu guddi yépp pour yeneen diine la yooyu ku ko xam di ko bàyyi xel di ko ah, mu metti leen defe naa amul benn ah, embouteillage booy wane ci 24 ah, décembre aada yu mel moonu topp ci anniversaire fi ñu toll nii daam ñoo xam dañ ko jële jële jël anniversaire di ko waajal lu mat weer di ko yëgle di ci dépassé am ñoo xam ne xale bu juddu eh, weer wi néew la am at ngay waajal sa doom jooju xamagul dara anniversaire ñu ci bari nag moom euh, lekk ga ak ak poma fa nekk rek ak poma fa nekk rek waaw taal ay sondeel fay ko wut ay gâteau bind ci ndàngam ak comme ni ko ñu dul jullit di defe léeg-léeg nag ngay wax ñu ni euh, boroom xam-xam yi wala boog waxtaankat yi daal ci am ñoo xëy dañuy euh, dañuy garaawul lu garaawul anniversaire garaawul déedéet ñu néew ñu xaraam na waxuñ loolu waaye dafa ñàkk solo lool lool ci jullit mu jox ko genn gëdd gi di ko waajal di ko def di ci fere lu am solo lool day ñëw du yëgal yaramam sax ni ni tey jii la bis sàngam wala anniversaire na xool ba xam doomam ndax mi ngi yokk ci wàllu <coughs> ci wàllu lu baax ci wàllu gën a xam boppam hmm? ndax doomam nangam nangam nangam loolu sa yoon du ci ne yow daal sa yoon lim nekk moom mooy ah ni ko tubaab bii defee nga defee ko noonu loolu jëmul kër am na nag jullit léegi yu yew yoo xam ne am nañ complexe ñoom sax di def yu mel noonu wax yàlla am na jullit yoo xam yëgul mbooye lañu ñu baal ma de waaye am na fi de moom fu jamono mab bu jëm fa liñ jëm moom jamono moo leen di wammat jamono kat képp koo xam ne danga koo bàyyi ak sa bopp dee la dugal ci pax moo xam ni kenn mënatu la faa génne wala boog mënoo faa génne sa bopp mënoo sa bopp mukk mukk yàlla moo lay baax nga génn fa rek loolu nag jigul ab jullit jigul ku gëm yàlla kon adversaire ak yëpp sama baay ba sëñ Abdou Mbàkke yàlla wéral ko daana wax ni bi ñuy wax naa waaye 24 décembre ah di ci tàngal meew di ci nangam ak ci togg nañ ko bàyyi ay jullit lañ mu ni yéen kon xanaa mun leen ko def vingt trois décembre bokk gis nga ko moom xakim la waaw waaye daal mbokk yi ah nun ay jullit lañu nañu xool bu baax baax li ñuy def ci suñ boppi doom yi ndax dañoo nekk gone pour ñu ko màggaale nan xool loolu bu baax moo tax ñuy sonn ci yu mel nii rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah الحمد لله الكريم سلمنا على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى ما أنفني